maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi nga xam ni yéen a safoo di suivre seen télévision Lamp Fall tey jii nag ñi ngi ci dëkk bu sell ba di Touba Mbacké bokk na li nga xam ni moo waral sunu teewaay fii di caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul caravane boobu nag dina dem ci dëkk yi nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba jot na faa jaar ba am yenn ci mboot yoo xamante ni buñ fa demee danañ ko nemmeeku seen télévision Lamp Fall yéen a yéen ci dëkk yooyu bokk na ci yi nga xam ni mën nañ ko Mbengue Diaw di bëri jàmm Cissé di Sanosi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni caravane bi fas yéene na ànd ak yéen ci dëkk yooyu génneel li nga xam ni mbóot yi moo fa am waaye li fa gën a am solo mu di dialogue interreligieux bi nga xam ni xalif général kullu murid Serigne Sidi Mokhtar Mbacké initié na ko ci diggante këru diine yi tey jii seen télévision Lamp Fall fas yéene ànd ak yéen ci troisième édition bu caravane sur les traces de Cheikh Ahmad Bamba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar xalif général kullu murit di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér di jàkkaarloo ak yéen nag fas yéene tàmbali liggéey bi nga xam ne ki nu ko digal te di ci sunu jawriñ tey jawriñi murit yëpp ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar di jëwriñi magam di cheikh Mouhamadul Mountakha moom cheikh Mouhamadul Bachir di sëriñ cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir mi ngi nii toog xam ne lépp liggéeyu màggaluk Touba ci loxoom la ko sëriñ Touba cheikh Sidil Mokhtar teg waaye mu jëlaat yoonu murit wépp àndaat ko ak ñoom ñi ci war a bokk ñëpp mu boole leen ci te génnewut kenn yoon wi nga xam ne nag moo ñu ko digaloon waaye jëloon doomam di xaritam jëloon doomam di xaritam di sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke gaynde Fatma dénk ko liggéey boobu waaye ñoom it ñu fob seen taalibe bii di sëriñ Modou Mbacke si moom sëriñ mustafa si moom sëriñ Malick Basine si mu jiite liggéey boobu muy jéem a topp ci jéego yi nga xam ne ku tedd ki Cheikhuna Ahmadul Xadim jaaroon na ko ci réew mi te ñu tàmbali ko lu diirub ñaari at ren jii ñu fas ko yéenee dooraat jëm ci dëkk yi nga xam ne bi sëriñ bi jógee ci géej gi 1902 jaar na fa fekkoon fa ay bokk ak i taalibe mu jokkaat bokk googa fedd lewaatal leen seen pas-pas booba ba ñëw daaru salaam jéego yooyee lañ jotaat ndigal ngir war koo jéem a doxiwaat loolu moo ñi ngi nii àndandoo toog ci kanam Cheikh Mamadul Basir fas yéenee taatan ci moom ay kàddu ak i ñaan fas yéenee jëm ci dëkk yooyu nga xam ne moo wax ne moom day mooy tànki Cheikh Sidil Mokhtar ca waroon faa dem dëkk bu ci nekk kenn ku toppoon Serigne Touba bokk ca mag tam amoon yéene ñëw ba fa yow mu xamal la ne màggalu Touba gi de ci nga bokk ci Serigne bi boole na la ci jéego yooyee nag ñii mu yabal ñoo di ay tànkam fas leen yéene doxi kon dañuy taataan kàddu yi nga xam ne mooy tàkk ci moom ak ñaan yi nga xam ne moom la ñuy ñaanal الإيمان والإرادة السلام علeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Sidi Muxtar al xalifatul am li tarixati muridiya yàlla na ko fi suñu borom bàyyi lu yàgg la tam ànd ko wér ci bopp yoonu murid nekk ci kanamu yoon yëpp kàddu yi ñu yëkkati ci ndigalam lañu ko defee kàddu yi nag kàddu yi sant rek lay doon ak kàddu yi ñaax ak kàddu yi ngërëm kàddu yi cant yi mooy sant leen ci li ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi joxoon ci liggéey te te ngeen di ko def at mu jot ñu leen ci sant cant gi sax moom xam na ne seen bopp ngeen koy defal ndax liggéey sëriñ Tuubaa moom ku ci sa bopp rek nga koy defal waaye nag ñun ñi ci nekk bëtub sëriñ bi di gis taxawaay yi ngeen ci taxaw ak jëf ji ngeen ci jëf kon ñu ngi leen ci sant ci loolu bu baax bayuñ kenn nag ci cant gi di leen soñ itam ci liggéey bi ndax sëriñ Touba fépp foo xam ne jaar na fa rek bàyyi na fa jeexit jeexee jëm fa bàyyi nag ak barke bu fa bàyyi ngeen jaaraat fa siyaare barab ba bu dee foo xam ne dafa seqoon ak ay nit ngeen fedd loola loolu kon xalaat bu baax la bu rafet ñu leen ci gën a soññ ngeen am ci positif te xam ne kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa da ngay jaamu suñu boroom mu mm-hmm. gën koo sellal tàmbalee ko ci sellal yéene ji ba yéene ji rafet ndax yéene ji mooy rafet jëf yi door a ñëw ndax innamal a'maalu binniyaat lépp loo xam ne yaa ngi koy jëf te àndut ak yéen ju sell itam jëf ji du doon jëf ju am solo kon loolu ngeen feex ba jiital ko ci te fexe itam ngeen xam euh, barab yooyu ngeen nekk sellaay bi ak teddaay bi ak jaar ga fa Sëriñ Tuubaa jaaroon ngeen fexe itam ba waxtu wu nekk muy nuru jataayu Sëriñ Tuubaa ci lépp tam mooy fexe ba àdduna bañ cee dugg fexe ba bakkan bañ cee dugg fexe ba puukare bañ cee dugg loolu bu ñu ko defee rek bañ cee jublu dara lu weesu wane Serigne Touba ndax Serigne moom ñëpp xam nañ ko ba waaye nag ñi nga xam ne gindikooguñ ci moom wala fa nga xam ne jaaroon na fa ngeen fexe ba yeesalaat foofu loolu rek mooy tànk yi jéego yoon yi ngeen def kon nag ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ngeen àgg ca jàmm ci liggéey bi te am ci ndam day ci taw féexu Serigne Touba ngeen yàggu koo def te day ci ngërëmam day ci ngërëmu Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo ko fi nekkal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ngeen dugg ci ci bisimillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh